sëriñ Touba Seexul Xaddiim ñu wax leen tuuti rek ci lii di sababu tukki bi ginnaaw bu mu sancee dëkk bii di Daaru Salaam ci atum 1884 ñaari at ginnaaw bi ci atum 1888 la sanc nag dëkkam bu sell bii di Touba ginnaaw bi nag la sanc daaroom gii di Daarul Xuddoos jàkke jooju fi nekk di jàkkey sëriñ Mbàkke Madina foofu la daa dugge lii di xalwa yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di ngëm gi mbindee feeñu na ko ci ginnaaw bu mu duggee xalwa di ko wax ne am na tukki bu yaatu sori te yàgg boo war a dem waaye nag am na ay gàllankoor yu ci nekk wala ay jafe-jafe yi ci nekk sëriñ tubaa seexul xaddim ma ngay xamal yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di ko wax ne ruu gi ak bakkan bi laa mënul dara waaye heure buñ ma ko téyelee lii di jom ji dana ko sàmm te mën na ko yonent bi ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam di ko wax ne am na gaa yu bari de yu la fi jiitu ci ay góor yàlla waaye lii nga wax de lañ waxoon yan bi mujj na metti seen kaw bañ mujj saalik seexul xaddim di wax wax ngeen gi mbindeef rek ba nëgëni daal ruugi daal la munul na ko yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di yokk ca wax ja di ko wax ne nag ba tey itam am na baneen gàllankoor bu ci nekk ndax kat sa nijaay ji di sëriñ bu soobe bu su fieg mi ngi fi yan bi moom du mën a am ndax kat suñ boroom tabaraka wa taala weg na ko te rus na ko te lépp lum ko ñaan dana ko ko may ñaareel bi nag mooy sa dëkk bu sell bii nga nekk itam di tuubaa fieg yaa ngi fi benn natt du la fi mën a dal ndax aar nga ko te yiir nga ko te suñu boroom kat du la fi teg mukk ab nattu loolu lépp nag tax na sëriñ tuuba seexul xaddim génn ci dëkk bi di tuuba dem ci jolof sanc fa ab dëkk bu ñuy wax mbàkke bari jolof mu nekk fa ci biir lu tolloog ñeenti weer yi suñu boroom ci biir ñeenti weer yooyu nag mag ñu bari dégg nañ ne ma nga fa rawatina lii di tubaab bi tubaab bi nag yónni woon na ndaw ginnaaw bu mu yégee ne ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim jóge na tuuba mi ngi jolof ci wetu chef de bii di sàmba lawbe penda tubaab bi lu waral loolu kii di maam abduloo la tubaab bi yónni woon ngir mu coytul ko sëriñ bi ba xam ci lan la nekk maam abduloo ñëwoon na seet si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim bi mu delloo ci lii di gouverneur bi xamal na ko ne kee ma fekk nee daal mbooloo mu bari wër ko ñii yor ay ngànnaay ñii toog di déglu lu dul ndigalam dalul sama xel te fekkoon na nag lu ko jiitu nag ci mois de avril ci atum 1889 administrateur de colonies yónnee woon na ay bataaxal ci njàmbur ngir itam ñu mën a am ay renseignement ci lan la cheikh bi di def ci tund woowu ñu teg ci ñaari weer muy le 27 7 juin 1889 lettre boobu bi ko tubaab bi laajee ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ma nga leen di xamal ni moom gisutub lettre déggutub lettre waaye saa buñ bëggee mu tontu leen dana leen tontu tubaab bi nag wéy na nag di ñaaw njort ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim waaye ba nëga ni rek amagul lenn lu mën a tuumaal ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ndax gisu ko muy doxalee ni sëriñ si ko jiitu doon doxalee ba tey tubaab bi gisul Seexul Xaddiim di doxalee itam ñaaw njort gi mi ngi ci ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim waaye daal xam na ne wuute naag ñim doon xeexal ciw doxaliin ñaaw njort gi mi ngi wéy di am ci tubaab bi digganteem ak ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim ñu teg ci juróom benni at muy fukki fan ci mois de juillet ci atum 1895 administrateur bii di Leclerc yónni woon na ab leetre directeur des affaires politiques ci ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddiim bisu benn fan ci mois de juillet tombeeg muy bisub tamxarit directeur des affaires politiques bi mu eggee ci bis boobu fekk na ñu bari wër ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddiim bi mu ñibbisee di wax la clerc mi ngi koy wax ni daal mbooloo ma ma fa fekk takk na lool waaye nag la ñuy wax daal ba nëg ni mënumaa xam lii la wala laa bis bii nag fa la fekk cheikh dul faadal mbàkke mi ñaareelu xalifa xaadim rasuul bisub keroog maam abdu loo lañ yónni woon ngir mu xool si ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddiim naka la nekkee foofu ci mbàkke baari jolof bisub keroog ak ngan boppam mm-hmm. boole koog nag am na yeneen magi murit yoo xam ne nii itam ñëwoon nañ fa doon ziyaare si ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim kon bisub keroog xumb na lool ci Mbàkke Baari Jolof bi maam Abdu Lo delluwaatee Ndar loolu la wax tubaab bi boole kook di ca dollil na ko nag gaa yi ma gis ñu wër ko ay ngàndaay la yor nañ teewlu Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke mu nett li ñu ko Jolof nag mu dem fa foofu Mbàkke Baari yi am na fa yenti weer la fa am bi ñu jaxase ko ba ñu gis ko fa fekk na moom boobu loolu na siiw dem daal moom moom moom la ne si li dem nga amul ba man seen seen sabab lu muy ja wax yi da jaxase kat rek di leen seen ak tubaab bi ñoo ko jaxase wan ko ne ko kee doo leen jéem waaye foofee ci si kawal jëm si may bëgg a xeex yow rek moo tax nit ñi fi ñi ko jëkkoon defoon fekk na moom dem rek dem rek la bëgg sama kanam la loolu lépp na maa ngi teew daal mu mu ci toog na fa ba am bis ku ñuy wax ku ñuy wax ma du ñëw fa fekk dégg-dégg boobu yi moo tax mu dikk teg déggu doole ji yóbbu yóbbu foofee ak mbooloo moom fa yóbbu waaye nag mu àddu nag fekk boobu moo ñël beenu séet ci booba ci mu tàmbali ko ci moom mu mu bon daal naa ko seeti kon seet ko ci ñëw wax ma lu fa ne dem dem dikk yàlla bis bu mu ñëwee fekk na sambalo bi boobu mooy bul ba Jolof ñu financé bi ma Abdou financé ci suba sambalo bi bàyyi ko ca Jolof ànd ak Jolof gépp ab xale xale la ñu xam nga bu jógee ñu góor laa doon bëree bëri ak ci fas naa di góor ak lu ne lépp maa ngi jàll moom man ba mu dikkee Ceerno Ceerno sëñ Ibrahima Fati mi nga xam ne moo amee moo sëñ ci Daaru Muti moo nekkoon Daaru Muti fekk boobu moo fa ne mooy mooy fi fi mu fi mu la gan ñiy jaar mu dikkee ne sëñ bi sama la li moo na na na tekki na tekki te ñëw nu nu waxtaan laaj ko nag boo xam ne lu yoonam ne ko dara dafa dikk rek fekk ma fi ma dikk di ko nuyu si rek di ko sargal xam ne sama gana yenn fa ñu ganale ko gan goo xam ne kenn su ko gis ci ngoon ci teg soni ko mu gont di dem fekk man mii daan na wax maam bi ñuy maam sëñ Ñang ma ñu ànd ak mag Jolof yëpp moom ñu dem àndal daanaka moo ëppale waaye am àndal sax ci ci bari ci tegu saa yi su da ñëw moom fanaan si sëñ bi nuyu moom dal ko dal bu mel ni bu mu daloon kale moom bi mu ko moom moom bi ngi si ko démagut sëñ bi yéen yi sama maam jooju mu dem waaye dina daal fii xëyee nag di dellu tàggu sëñ bi xamaa ngi dellu la ko rendre compte di ko wax mbooloo mu bari maag jataay baag ñam fa fekk ndax bu leen fàtte ne ñi àndoon nag Sàmba Lawbe kat ay ngànnaay lañ yoroon te moom dafa jortoon ne ñooñu itim armée sëriñ bi la kon nag tubaab bi wéy di gën a ñaaw njort ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ndax kat ñi mu yónni woon bi mu ñëwee liñ ko wax dalalul dara xelam kon tubaab bi nag convoqué na ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim waaye wuy siwut maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru la yónni woon ca booba mu demal sëriñ bi ngir tontul ko boole ko nag maam abduloo di wéy di def ay pexeem ngir ñu jàpp ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ak kii di sàmba law lawbe lan moo tax nag mu bëgg ñu jàpp ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ba nëgë kenn xamul lan la waaye rek saa mi ngi ci ay pexe ngir ñu teg loxo ku baax ki sëriñ tubaa seexul lawbe moomu gane si woon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim jiite itim tund wow di jolof ab tampon yàqu woon mu yóbbu woon ko ci dëkk boobu di ndar géej doon ko defarlu maam abduloo demoon na keroog fi ñu doon defare lii di tampon yi fekk na fa tampon yu baree bari yu yàqu waaye lépp rek bu leen fàtte ne daal mi ci pexe yi ñu teg loxo sëriñ bi lan moo tax nag ba nëga ni ump na ku ne keroog bi mu eggee foofu bay wër tampon yi di laaj bañ na ko bii sàmba lawbe moo ko moom mu foofee mu ko doon defarlu ngir ñu defaraatal ko ko maam Abdou Lo defoon na aw këyit ci poosam këyit woowee nag jël na ko fexe na daal ba dóor ca lii di tampon ba mu marqué ca mu fab def ci poosam toog di waxtaan ba ñibbi jotee mu ñibbi keroog bi mu ñibbee la bindub lettre di wax gouverneur général bi man Samba Lawbe jiite tund wi di Jolof ak man sëriñ bu mag bii di ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moytuñu ñu ci say tànk te danañ dal ci sa kaw am na waaye ñun nag duñu ñooñu na nga xam ne daal saa su ne ñu ngi ci say tànk te danañ dal ci sa kaw loola la maam Abdoulou bindoon ca lettre ba adressé ko ki nga xam ne nii moom mooy gouverneur général ngir wax ne Samba Lawbe ak ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddiim ñoo ko bind lettre boobee nag mu jural ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddiim demu Gabon gi ñu teew teewlu Cheikh Mamadou faadal ba tey mu nett li ñu naka la maam Abdoulou def ba bindub lettre ci tampon jàmbur. yóbbu ko ndax di ko defar lu waaw maa bi wax na ba dikk foofee yi ko defaree seen samp yu bëri ne fa ma ana ko moom bii waaye ana ko moom bii ana ko moom bii waa ngi si bopp sàmm rawle bi bi bi sàmm rawle ko doon defar lu waaw ma ne ko ma gis waaye ndax pare na mu ne ko waaw pare na da koy kayit ngi fi yu bëri fa fa pot def ko nii teg ci kayit wu sànni si kayit rek mel ne am ci soxla mu dem rek ñu fexe ba yóbbuwaale dañ ko yóbbu nag ba sa suba ba ci suba sax dal wax ne man sama raw bi ci kay wala man sama raw bi Bamba yow borom ndar defaroo nu ngi ñëw ci yow sama mag na la lu ne nii ko ne moom boobu dafa bëgg a daw mu dalaa woo ne la dikkal ba nga ko waxee ne na mat na ab biir bu sori defaru dal di nagam dal koy seet ay seet dal warlu ay ay baraay yu jeex ak ak sanqal sakkeen seen yi dal xëy dem rek bis bu nga xamee ne bu ma wax ne boobu doon nekk bu ne ko bu bu dikkee naa naa la nangam wax wax ji ñanga-ñang bis boobee fekk na def na ba njëkk kon loolu itam xëy rek euh, ndax di di di naka maag si fekk mu yaan si guddi ga dem fekk ko fa mu ne dem yëpp ànd ak jolof yëpp daw mu ne ko man man sama de man du ma koo ko man man li ma la wax moom man moom maay dikk maag sëñ ba man na ñëw ci yow teem la waa woon man nag wóolu wóolu noo ngi ñëw maa ma di bind lii ak signé def ko ci am kon nag ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim di gën di am ay jafe-jafe digganteem ak tubaab bi ndax kat tubaab bi jotoon na renseignement bu koy wax ne ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim foofu mu nekk ci Jolof mbooloo mu bari ñu ngi koy wër saa su te yor nañ lii di ngànnaay boole kook nag lettre bi nga xam ne nii jot na ko mu gën a garaawal situation bi ndax lettre bi maam Abdoulaye ma ngi koy wax ne yow tubaab bi moytuñu man Sàmba Lawbe de ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim saa su ne bay na ñu ngi ci sa kaw nattu baa binne la wutut ba yandoor waaye itam nag fitam dalul ndax dégg na doole ju ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim am foofu ci Jolof mu xëy suba woolu kii di maam Abduloo mi nga xam ne ni saa su bu lettre ñëwee moom moo koy jàng mu di ko xamal ne jot naa ay lettre yu takkoo takku maam Abduloo comme moo bind lettre ba moom moo koy jàng fa mu jaar ba bind ko rek fa lay jaar ba li ko di ko xamal ne lettre bii de sëriñ Tuubaa ak kii di Sàmba Law bi ñoom ñoo la lay xamal ne yow mën nañu xëy dal ci sa kaw wala ñu gont dal ci sa kaw loole nag bi ko tubaab bi déggee aw fitam dala tut ñu teew lu mamadul mu mu nettali ñu keroog bi maam abduloo waree jàng lettre bi nga xam ne ni moom moo ko bind ci teewaayu gouverneur bi lan la wax gouverneur bi keroog bu ñu andee courrier ba jokk ci lettre boobale wala la gis ko da bi nañ ma wool yaa ko war a jàng jàng ko ko bindoon mu jaar fu mu jaaroon rek ne ko yow borom ndar man sàmbalaw bi mag sëñ bamba ak jolof gépp defaru dikkalu ci sa kaw li loo ci xam na ah xam ci dara mi ngi nii rek leen laa ci xam jàpp jàpp ko rek jàpp ko rek leen bala ñoo ñëw jàpp jàpp jàpp leen rek laa kii xam ne moom la fa moom laa fi mu fekk kooku de mu ñu njëkki rek ma sëñ bi rek ne ko ah kooku ni ñu waxee kattan bari rek ñu mel def ngeen loolu des ko mën a ma naa ko li ma boolee waaw dinaa ko mën a wax na ko ay si boobu dañ fa ay espèces yu bëri jiraaf njaambur rek foofu yëpp mu dikk ñu ànd ak ñoom dikk ba bi laaj na maam Abdoulou lettre bi mu jàng lu ci pexe maam Abdoulou di ko xamal ne man de boo ma booleeg armée bi man na maa dem jëli ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddim wala menn man mi dong mën naa koo jëli tubaab bi di ko xamal ne ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddim dégg naa ne bari na doole de maam Abdoulou di ko wax ni loolu dal du ci dara man daal boo ma booleeg armée bi mën naa koo jëli tubaab bi noonee ko maam abduloo waxe ni la ko defee boole koog lii di armée bi ngir ñu dem jëli ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim biñ ñëwee nag ba ci dëkk boobu di jéewul la maam abduloo wax armée bi ñu toog foofu xaar ko fi mu dem mbàkke baari jolof jëli ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mu ngi leen di wax ni benn sàndarma rek doy na ngir mu ànd ak moom jëli ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ñi ci des nag nañ toog foofu ci jéewul xaar ko fi keroog sax sàndarma ba maam abduloo ma ngi koy wax ni bul sol tëni solal yérey olof ndax nga yiw maam abduloo ak gar gendarme boobu di gendarme bi biñ egsee ci mbàkke baari jolof bisub keroog itam fa la fekk kii di cheikh mamadul faadal mbàkke ba tey nañ ko teewlu mu wax ñu bi maam abduloo ñëwee ba sëriñ tubaa seexul xaddim xam lan moo nekk tànki maam abduloo lam wax maam ceerno ibrahima faati ànd ak ma sol sol yére yére wolof ànd ak moom sama kanam ñu fanaan si weesu ab a la ñu fanaan a guddi ga juma la ah ci suuf Thierno Thierno na sëñ bi moo ñëwati moo ab du dégg si na ne ko dikk ñu ne ko man de li ma yónni dañu may woo dañu may wooloo de. comme gëmëwu ko ñu ko ayca daal di defaru ci bëccëg boobee. ci ci bu ajjuma bi. dafa ne dañu wax ne mi bëgg yu bari yëpp maa ngi maa ngi taxaw. def. ci alximis joojee mu ko ko waxee ba set di ajjuma sëriñ tuba seexul xaddim wax ko kii di maam ibraahima Ibrahima yi di ko xamal ne maam Abdoulou mi kat nee na tubaab bi dama soxla kon nañ ma defaral samay bagage ndax damay wuy ji ñu yendoo ko defaral ay bagaasam bëccëgug ajjuma ba set di samedi ci fajar sëriñ tuba seexul xaddim waree fa aw fasam ngir dem ñu teewlu Cheikh dul Fadal Mbàkke mu nett li ñu samedi fukki fan ci mois d'août ci atum 1895 fajarug wax set googee nu seexul seexul xaddim jógee mbàkke baari jolof mu daal wax yu sew sew nii wax wér wax sax la dajal teel sëñ bi génn ci jàkka ja takkal nañ ko fa sama war ba noppi mu woo ma maag sëñ Modou Moustapha ñun ñaar boo noo fa nekk ci di gone ko ci penc ma am na foofu garab goo xam ne sax garab la gudd gudd dañ ko gor léegi waaw wan nañ ñu ko foofu lañ taxawal boobu fa fa taxawal fa lañ taxawal fas fa ci ko di war dañuy woo ñu ñëw si wetam ñaan suñu ñaari bopp dénk naa leen yàlla maa ngi dem. naa leen yàlla maa ngi dem fan la seexul xaddiim jëm ndar géej wuy jit lii di tubaab bi ci convocation bu mu ko amal yoon wa nag nii la tëddee ginnaaw 6 heures di matin mu jóge Mbàkke Baari Jolof 14 heures di waxtu tisbaar mi ngi ko fekk ci dëkk bu ñuy wax jéewul maam Abdoulo bi mu àndeeg ñi doon jël si Sëriñ Tuubaa seexul xaddiim ba ci dëkk boobu di jéewul foofu la waxoon ne nañ ko bàyyeek benn sàndarma mu ànd ak moom muy xamal sàndarma ba da baax ki wax armée bi itam nañ toqaar ko foofu kon 14 heures ci le 10 août 1895 def samedi foofu la seexul xaddiim dajee gaañooñu ba ci gug 10 août googu mu yendoo ci dëkk boobu di jéewul teroog bi muy jàpp ngir julli lii di tisbaar soxna suñuy wax njéeme ba moo ko may ndox mu jàpp seexul xaddiim laaj na ko naka nga tudd mu ne ko njéeme ba seexul xaddiim di ko wax ne yàlla de moo kiimaane ñi nga xam ne nii ñoo may jël si de fas yóbbu ndar ngir atema dañuy jéem jéem ba soxna njéeme ba moomu sax ak njabootam ba nëg ni ñu ngi bokk ci commission ñaari ràkka yi seexul xaddim yendu foofu fanaan fa guddi gaaw googu fukki fan ci mois de août ci atum 1895 fajorug dimanche fukki fan ak benn ci mois de août ci atum 1895 sëriñ tubaa seexul xaddim jóge jéewul ànd ak lii di armée bi ko doon jël si ñu fas yéenee dem nag lii di ndar géej fara jaari luga kokki lañu teere ji kokki googu ña fa egg itam lii di waxtu tisbaar waaye dañoo bëgg bëggoon a fanaan kokki doog a xëy dem biñ egsee kokki nag ni leen waa kokki teeroo dalul lii di xelum tubaab bi ñu xam ne daal kaso du kanam waaye koo ko mu xam ko boole kook ndox mi miñ doon ñaan ngir wëgg seeni fasitim waa kokki dañ leen a tànqamlu ñu xam ne fii daal du yendukaay du fanaanukaay te lu ko moy itim mën nañoo dal ci seen kaw ñu armal wuti lugaloo guddig dimanche googu dañoo fanaane dox ànd ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ba ci fajarug altene gi ndax seexul xaddiim wax na ci jasaawu sàkkoor bi wax ne fajaruk altene la egsi ci gaar bu Louga loo ndax fajar googu nag foofu sax lu ko jullee ba sedd altene fukki fan ak ñaar ci mois de août ci atum 1895 tubaab bi nekk ci gaar bu Louga loo di xaar nag saxaar gi mu war a jóge ndakaaru pour ñëw yóbbu leen ndar géej foofu lañ yendal ko baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim ci gaar bu Louga ba ay cinq bi maanaam di heures saxaar gi ñëw waaye keroog mbooloo mu bari fekk nañ sëriñ Tuubaa Seexul seexul foofu ci lugaloo ngir bëggoon a ànd ak moom dem ndar géej tubaab bi nag def na ay pexe ba ñooñu demuñu ndax da leen doon wax ni yéen ak sëriñ bi du ngeen mën a bokk wago gu ngeen dugg yéen da ngeen di dem ci wago yu féete ginnaaw ngeen dugg ci saxaar gi yóbbaale leen sëriñ bi ñu dugal ko ci wago wi ci kanam naka te tubaab bi bu gaa yi duggee ci wago wi ci ginnaaw ñoom danañ fexe ba lonki wago woowu bu saxaar gi dee dem wago yu muy yóbbu ñoom ñooñu bëggoon a ànd ak sëriñ bi dem ndar du leen yóbbaale kon noonu la tubaab bi def bëggoon a ànd ak sëriñ bi kon sëriñ bi mi ngi egg ndar altene 12 août 1895 ci bi 18 heures jàpp 19 heures jotee ndax foofu kat lu jullee lii di timis timis googu mu egg si ndar di fukki fan ak ñaar ci mois d'août ci atum 1895 ginnaaw nag bu ko tubaab bi gisee ba xam ne daal ki ñu doon jëli lu jëli nañ ko ba indi ko tubaab bi joxoon na ko benn lis di ko wax ni ñii daal ay kilifa lañ yu nekk dëkk bii di ndar ñii ñu la jox seen tur ku la ci neex mën nga caa dal seexul xaddiim jël bu ñuy wax Mohammed Xorey Seen ab naar la woon ab interprète la woon kër googu la seexul xaddiim nekkoon waaye nag dem na ba mujj gi daal lii di xelum tubaab yi dalul ci diggante kër googu ak seexul xaddiim ndax saa su ne murid yi dañ fay gën di bari boole kook nag di sikkar te tubaab bi jortoon na ne daal lii bu yàggee mën naa jur la te it murid ya fa nekk dañ leen di tànqal ndax kat njàng mi da leen di fat kër Ahmed Xorey Seen bii nag mi ngi ci quartier bu ñuy wax soor ci Ndar Géej nekkoon ci quartier boobu di soor léegi ab école la kon école élémentaire xayaar mbeng la jamono ji kii ñuy wax Ahmed Khurayshi nag Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim fekkante wut ak moom jamono waaye nag ci diir boobu mu def ndar demoon na ca pakam ba ngir barkeelu ca barkeb jëmm jooju waaye kër Ahmed Khurayshi seen la daloon bokkut ak Ahmed Khurayshi fekkante wuñ jamono bi Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim di dem ndar ba tey yóbbuwaan nañ ko faneen ci quartier boobu di soor lenn ci kilifay colon yi ñoo fa dëkkoon am ñu ne déedéet foofu kay général Leclerc moom moo fa dëkkoon ci kër googu ñu ko yóbbuwaatoon ci soor waaye foofa nag ci benn magasin lañ ko daa tëj moom seexul xadiim jabaru ka nekkoon ci kër googu am médecin la woon seetlu woon na ne daal tëj gi ñuy tëj seexul xadiim moom lu ko metti la waxoon nag kii di jëkkëram di ko wax ni man mii di docteur de doomu aadama bii ñu jàpp fii di ko tëj baaxul ci moom ndax deret ji du circuler deret ji nag dafa war di kon nañ ko tijji foofee ñu tëjoon seexul xadim di magasin mooy laboratoire bi gën a rëy ci ndar tey denc lii di dret ndax dret ja docteur ba tuddoon di jabaru commandant ba foofee mu ko tudde woon banque de sang bi gën a rëy ci ndar géej foofu la nekk moom mooy bërëb ba sax bàyyu seex saaliwu du moroom foofe itim daana def saa bu xëyee ñu bako mu dem julli doxantu bu daa doxantu fu mu ëppoon lim daa toog ci ndar géej mooy foofu banque boobu nekk di sgbs ci ndar géej am na jàkk ju fa nekk ju ñuy jàkkay seng foofu sax la bind xasida gii di asiiru bërëbu ziyaar la ba nëga ni ci ndar géej ndax xaadim kat daana fa toog lu yàgg bu ñibbisee nag bu guddi jotee ñu dencaat ko ci magasin bi ci ndar googu itam la gisee woon na ku ñuy wax maa béy njaay mooy bi muy bind asiiru di ko wax ne danaa tukki danaa ñibbisi foofu itam ci ndar géej lañ ko boole woon ak gaynde ga ci fi ñuy wax toolu buur kon seexul xaddim ci lool nag la sax ba le 4 septembre ci guddi ñu yóbbu ko ci benn camp militaire bu nekk ci quartier bi ñuy wax Roña Nord bi asamaan setee nag di la 5 septembre nag lañ ko indi ci gouvernance bu ndar géej ngir fa yéene ko àttee ci conseil privé boobu alxemis di le 5 septembre 1895 ci bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci suba ci benn salle boo xam ne nii salle fermée la àtte bi ñi koy fekkee dañ leen di segg liñ koy toppee nag mooy ku nar a daaneel nguur ndax lettre maam Abdullo bi moom rek moo ko indi ndar géej mook Sàmba Lawbe Penda mi wax ne daal buur fagarul danañ da sa Sénégalais ñu ngi ci sa kaw kon bu doon jamono jii ñu ne article quatre-vingt moo dal ci kawam te article boobu jamono jii kum dal ci sa kaw du yomb lu jiitu le 5 septembre 1895 tubaab bi doon na wéy nag di bind ay lettre ndax ñim séqal projet Serigne tubaa Seexul Xaddim bi da leen di rendre compte moo tax saa su ne ci diirub le 12 août biñ tegee loxo Serigne tubaa Seexul Xaddim ba le 5 septembre saa su tubaab bi daana rendre compte lu xew ñum ko séqal le 15 quatre-vingt-quinze gouverneur bu senegal bind na benn lettre di wax ndaw yi ko toogal ci Louga Bawal ak lii di Njàmbur pexe miñ tëraloon ci benn fan ci mois de août ba juróom-ñeenti fan ci mois de août ci atum 1895 ngir ñu teg loxo ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim loola sotti na le 29 août 1895 ba tey tubaab baa ngi gën di dëggal na rek teg loxo giñ bëggoon a def ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim def nañ ko le 5 septembre 1895 di bisub alxamis nag la conseil conseil privé bi amal benn ndaje ngir àtte na ku baax ki sëriñ tuuba seexul xadim procès verbal bi boo demee archive bu France fekk ko fa section FOM Sénégal numéro 127 bisub alxamis boobu di juróomi fan ci mois de septembre ci atum 1895 ci bi juróom ñeenti waxtu jotee ci suba gi ci bureau gouverneur boobu wala ci gouvernance bu ndar géej lañ àttee nag ku baax ki sëriñ tuuba seexul xadim bisub keroog ñii ñoo fekkee àtte ba wala ci teewaayu kilifa yii la ku ñuy wax moom moo nekkoon gouverneur di président ndaje ba ndax booba kat gouverneur bi fi nekkoon dañu ko doon doog a te moom mii mooy ki ko wuutu woon ñaareelu kilifa gu fekk lii di atte ba bisub keroog mooy ku ñuy wax Ersan Gili moom moo nekkoon commissaire des colonies chef du service administratif ñetteelu doomu aadama bu fekke atte ba mooy ku ñuy wax Boye moom na colonel la woon di commandant supérieur des troupes par intérim ñeenteelu doomu aadama bi mooy ku ñu doon wax Jorket de l'intérieur la woon par intérim crime juróomeelu nit ku fekkee àtte ba mooy ku ñuy wax clerc médecin principal la woon chef du service de santé juróom benneelu doomu aadama bu fekkee àtte ba mooy ku ñuy wax orgaret na de vaisseau la woon délégué du commissaire de la marine juróom ñaareelu doomu aadama bu fekkee àtte ba keroog bisub alxamis le 5 septembre ci atum 1895 ci conseil privé biñ amaloon ngir àtte ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim mooy monsieur Béchiat conseil privé tutélaire juróom ñetteelu doomu aadama bu tekki ba mooy ku ñuy wax monsieur mbenn conseiller privé suppléant la woon Superville secrétariat architif kon juróom-ñetti tubaab yi ñoo fekki àtte bi ak seeni garde ak ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim mi ñuy àtte ak Duudu Sekk benn maxtaar mi nekkoon entre prêtre bi bu tubaab bi laajee ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim Duudu Sekk benn maxtaar wax ko ci wolof bu Seexul Xadiim tontoo Duudu Sekk benn maxtaar waxaat ko ci tubaab bisub keroog àtte ba lii moo ci tukkee bi ñu noppee membre yi séqoon ku ne signé nga ne li tukkee ci àtte bi ànd nañ ci waaye nag pexe bi mooy dañuy jël sëriñ tubaa seexul xaddim yóbbu ko ci réew mi di gabon ci bisub nag le 21 septembre lay jóge sénégal balaa boobu nag ci le 18 danañ ko jële fii ci ndar yóbbu ko ndakaaru mu doog a mën a dem foofu di gabon bu dee dem nag ci lii di ak gaal lañ koy jaarale diirub li muy nekk gabon nag weer wu jot danañ ko fay fukki dërëm ngir mu mën ci dund procès verbal bi nag moo nekkoon N1 bi moo nekkoon N16 soo demee archive nationale national lii ma la wax da nga ko fa fekk atte bi bi mu jeexee ci bëccëgug le 5 septembre sëriñ tubaa seexul xaddim ñi ngi ko fanaanal nag ci guddi 5 septembre ci benn cellule bu nekk ci gouvernance bu ndar cellule ba ba nëga ni sax murit yaa ngi koy ziyaare nekk na fa nag ab diir ci biir cellule boobu ndax kat léegi mi ngi ci kaso bi ñu denc mujj gi nag jëlee nañ ko foofu ci gouvernance bu ndar gi yóbbu ko nag fi ñuy wax toolu buur toolu buur nag mi ngi ci quartier bii bi li occidental ñoo daa def bépp gàncax goo xam ne nii daal tubaab bi gis na ko te jort ne buñ ko bayee mu amal njariñ lii di àdduna bi wala lii di Afrique foofu ci toolu buur lañ ko daa essayé muy fi lañ ko daa njëkk a bayee nu mu mel nag ñu doog koo tasaare ci askan wi foofu itam seexul xaddim nekkoon na fa ngir itam di liggéey foofu sax lañ ko boole woon ak lii di gaynde gi ci tool boobu mi ci quartier boobu di soor kon foofu la nekk ba le 18 septembre 1895 ñu doog ko faa jëlee nag yóbbuwaat kon ndakaaru ngir mu am fa ñetti fan ndax le 21 kat la projet bi waxoon ne ci la seexul xaddim war a jóge nag lépp luy trottoiru Sénégal kon ndakaaru dong nag la mën a jaare ndax foofu kat la bato yi nekk fa yéene koo yóbbu Gabon Gabon googu la nekk ba le 20 septembre 1902 ñu dugal ko ci benn batom napp bu doon napp ne dana jaar lii di Sénégal autorité coloniale yi doon xamal bato bi na heure bu jaaree Sénégal na fa wàcc lii di seexul xaddim kon seexul fanweer ak ñaar fukki fan ak ñaar ndax kat bu leen fàtte ne bato bi day napp seexul xadim taxu koo jóg kat heure bu egsee Sénégal baax na seexul xadim dañ koy indaale rek kon le septembre 1902 ba le 11 novembre muy doog a egsiwaat ndakaaru bi mu Gabon ci atum xam ngeen ne coow li taxoon ñu yóbbu ku baax ki Sëriñ seexul xadim ci géej gi mook sàmbalaw bi ñoom ñoo ko séq ndax maam Abdulloo kat lettre ba ñoom ñaar la ci tuumaaloon ne ñoo ko bindoon kooku dimba yóbbu ko gabon moom itam tubaab bi mi ngi ci ay tànkam juróomi weer ginnaaw bu ñu yóbboo seexul xaddim ci gabon muy atum 1896 tubaab bi nag wàcce na kii di sàmba lawbe ci fonction yiñ ko joxoon mu nekkoon lii di jaraafu jolof mook mbooleem ñuñ falandoo woon ñaari fan ci mois de janvier ci atum 1896 conseil privé bi atte woon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim amalaat nañ beneen réunion ci biir ndar géej googu waaye top secret lañ ko tudde woon muy képp koo xam ni réunion sa yoon yoon nekku ca ñeenti fan lañ ca teg ginnaaw bi ñu amalaat baneen réunion wala ñu génne benn lettre inspecteur général des colonies ak gouverneur général Afrique occidentale française ak ministre bi yor wàllu colonisation ci Paris génne nañ benn lettre di wax ne article 4 biñ amaloon ci le 30 septembre 1887 conseil privé bi sukkandiku na ci ci le 2 janvier 1896 di wax ne kii di Samba Lawbe Penda ex Bourba Jolof crime haute traition lañ koy toppee kon réunion ci le 2 janvier 1896 nekk top secret kon le janvier xam nañ kon lan moo tukkee woon ci réunion booba mooy Samba Lawbe dañ koy wàccee ba pare dañ koy yóbbu Gabon di ko toppee nag haute trahison ndax fonction yiñ ko joxoon da koo fooye kon Samba Lawbe mujj na fekk si ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim foofu ci Gabon le 1 février la ko Buuna Njaay nekkoon doomu Alburi Njaay remplacé foofu ci Jolof décret bii nag ministre des colonies mooy ki ko signé le 23 1999 muy juróomi at ginnaaw bu sëriñ Touba Seexul Xaddim demee Gabon gouverneur bu Sénégal bind na lettre commissaire général bu kongo française foofu ci Libreville di ko wax ne jox naa autorisation kii di maam Cheikh Anta Mbàkke rakku sëriñ Touba Seexul Xaddim la ngir mu ñëw xool si magam jooju waaye nag li ko dale ci le 23 septembre 1899 ba le 1er janvier 1900 mën na ko fee nekk waaye le 2 janvier fu ngeen ko gisee Gabon jàpp leen ko ndax wiisaam jeex na foofu nag fa ak ku baax ki tuuba seexul xaddim façon natt bu ne itim def nañ ko ko foofu ci gabon lu ne itim daj na ko fi mag ñu bari itim ñëw nañ foofu fekk ko fa ngir ziyaare si ko ndax xam nañ ne kat doomu jaara bi du moroom bis boobu sax du ñaari ràkke yi di le 5 septembre 1895 màggal gi mi ngi bàyyikoo ci magi géwal yi wala mi ngi bàyyikoo ci lii di géwal yi ndar yi ndax dafa am bis ñu toog di waxtaan ba mu yàgg ñu ne waaw ñun fii ci ndar mënuñu fee def dara waay wala ci géwal yooyu indi nga daal sa xalaat ñi xalaat làmbu ñi xalaat tànn biir kenn ku daal sa xalaat ba nga indi woon ku ñuy wax ma paali seen ab artiste peintre la woon moo ne waaw bis bi sëriñ tubaa seexul xaddim ñëwe woon ci ndar géej gi julli fi ñaari ràkka yi lan moo tee ñun ñii ñu jàpp bis boobu di ko fàttaliku ña fa nekkoon ñépp ne ko waaw lool te moom rafet na lool moonte bis boobu sax màggal ko de moo gën a wóor ñu jàpp bis boobu nag ndax juboo nañ ci ci wàllu kàddu ku ñuy wax sëriñ abdu xaadir cuun mu am bis nag ñuy def réunion Gaston ci diggante bi nag gis na fi ma dikke wàdd kii di ma dikke wadd nag képp kuy ndar ndar xam nga ko ndax bañ bañkat la woon kii di président de la république bi fi nekkoon di Léopold Sédar Senghor xamoon na ko ba jubowuñ woon sëriñ Abdou Khadre Thioune mi di ko wax ni ma dikke ñun kat bu ñu sañoon nag suñu xew wi ñu taxawal wala suñu xew wi ñuy waaja taxawal yow yaay ñëw jiiteel ñu ko ndax kat lii di organiser mbooloo xam nga ko ma dikke wàdd nangu woon na waaye dafa tegoon lii di ay condition di leen xamal bàyyeeg lépp nag ma yore ko ngir doxal ko ñu ne ko waaw ànd nañ ci kon kii di ma dikk wadd ginnaaw xalaatu géwal yi nag ñoom ñooy ñi ko njëkk a organiser ci atum 1976 booba itim amul woon bis fixe ndax màggal giñ ci njëkk màggal màggal nañ ko ci mois de juin ga topp màggal nañ ko ci septembre màggal nañ ko itim ci lii di juillet waaye li amoon solo ba am solo rek mooy saa su ne lii di ñaari rakka yi moom ñi ngi koy màggal ak nag manière biñ ko doon defe ñoom fi jumaa ji gën mag ci ndar nekk foofu lañ daa amale lii di xewwa ginnaaw nag bu seeni yëngu-yëngu jeexee ñu dem ca bayaa jullee fa lii di tàkkusaan waaye musta nekk ñaari rakk boole ko nag jëf yi di def at mu jot nag muy ëpp doole ndax demoon na kat ba mujj gi magi ndar yépp nag bokk nañ ci xam nañ ne lii kat ku ko jàpp mu jëm fenn waaye kii di gouverneur bi nekkoon ndar jamono jooju àndul woon nag ci manifestation bi ndax kat ma dikke wàdd mi ci nekk juboo wut président de la république Léopold Senghor bi fi nekk la réew mi kon kat bu nekkee ci dara ak lu mu lislaame lislaame ñaaw njort dana taxaw ba ci am na at moo xam ne nii ci wàllu manifestation gouverneur yebaloon na lii di béere rouge yi ngir nag ñu kar gaayoo yi doon amal ñaari rakka yi ba daanaka sax lii di pënd bi takkar naase woon na keroog lool ci ndar gi ci booba nag lii di 5 septembre bi luñ ko ko ci bis boobu ndax newoon naa leen màggal gi màggal nañ ko ci weer wone keroog bi ñu ñëwee ba ci wetu pont Faidherbe bu la takk yi kar foofu làmbaay nag naroon a dekkiwaat waaye suñu boroom ak lu mu nar sëriñ tuuba seexul xaddim ak lépp luñ koy wooteel te muy dëgg mu taxaw bisub keroog xiinu ngelaw wu metti la suñu boroom def ngir àtte ba takk der yi ak ñi doon def wàllu manifestation bi kenn xamu tut foo nekk ndax yaa ngi bëgg a rawale sa bopp ginnaaw xiinu ngelaw woowu nag la suñu boroom indi ndox mu bare bare ngir wàcce ko ci ndar géej ngelaw loolu ak taw boobu am keroog ca ndar nag moo a xaddiim gën a wane ne lu ko waaye di woote muy dëgg mu wuy si la mer wi takk der yi meroon sedd na manifestation yi tim toroxal gi leen takk der yi naroon a toroxal mujj nañ ko ba te lañ xamee ne nag lii kat seexul xaddiim mi ngi leen ciy poussé ñu sol seenu dàll ca déwén sa ñu waqu ku baax ki seex abdul axat mbakke boobu sëriñ moodu maamun ñang mi secrétaire am ma nga fa ñu wax ko ne ñaari ràkke yi daal at mu jot dañuy laaj si ndigal ren jiitim dañoo ñëwoon doon laaj si lii di ndigal sëriñ moodu maamun ñang mi secrétaire u seex abdul Abdoulahat Mbacke moo tontu di leen xamal ni ban bis ngeen koy màggal ñu ne ko daal heure buñ ko jekkoo rek ci vacances yi amal ko mu ne leen te ngeen koo def ci bis bi ko boroom defoon muy juróomi fan ci mois de septembre sëñ Abdoulahat na tekk ba nëga ni tontuwul moo du Maamun Ñang gën leen koo leeralal ñuy dem Cheikh Abdoulahat mbakke ñaanal leen boobaak léegi nag le 5 septembre bu ne ñu ko cay màggal ca at mooma itim nag lañ ko tàmbalee tuddee lii di ay doomu aadama muy ci atum 1980 mujj gi nag cheikh murtada mbàkke nekkoon caatum xaadim rasuul daana def at mu jot mu fekke si ko ba lii di jullik tàkkusaan gi sax moo ko daa jiite bi mu fi bàyyikoog léegi nag taawam ba sëriñ maam moor mbàkke ibnu cheikh murtada mbàkke moo koy taxawu ndax xam nañ ne kat xaadim moo fa julli woon te bépp doomu seexul xaadim bu fekkee lii di ñaar ràkke itim ànd nga ca kon nag ndar yorong màggalam ñaari ràkke yi nag nii la tëddee ci atu 1976 biñ ko njëkkee màggal tuddewuñ ko kenn ci atu 1970 settim tuddewuñ ko kenn ci atum 1978 tuddewuñ ko kenn moom itim ci atum 1979 itim tuddewuñ ko kenn ci atum 1980 nag lañ ko tàmbalee tudde nag njabootug sëriñ tuuba seexul xaddim gi ki njëkk a tudde ñaari rakkay ndar yi mooy cheikh mohamadul mustapha mbàkke ibnu xaadimu rasul ci 1980 ci atum 1981 ñu tudde ko ñaareelu doomu seexul xaddim ga ka toogoon ñaareelu xalifa xaadim rasuul di cheikh mohamadul faadal mbàkke ibnu xaadim rasuul ci atum 1982 ñu tudde ko rakku sëriñ tuuba seexul xaadim ba maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ci atum 1983 lañ ko tudde jàmbaaru sëriñ tuuba seexul xaadim ba di maam cheikh ibrahima faal lamp baabul muridina ci atum 1984 lañ ko tudde cheikh mohamadul bachir mbàkke ibnu xaadim rasul boroom daarul minnam ci atum 1985 lañ ko tudde rakku cheikhul xadim ba boroom dërëm ak ngërëm di maam cheikh anta mbàkke boroom daaru salaam ci atum 1986 lañ ko tudde caatub maam moor anta salima ma masamba mbàkke caat ma ci atum 1987 lañ ko tudde sëtub cheikhul xadim ba sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma ci atum 28 lañ ko tuddee taawub maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ba ndaamal daaru di sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke ibnu maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ci atum 1989 lañ ko tuddee rakku cheikh Mamadul Mustapha Mbàkke ba cheikh Muhammadu Lamin Baara Mbàkke boroom guy mbind ibnu Xaadimu Rasuul ci atum 1990 at moomu nag dañ koo bër tuddewuñ ko kenn ci atum 15 lañ ko tuddee ñetteelu xalifa xaadimu rasuul ba di cheikh abdul ahad mbàkke ibnu xaadimu rasuul ci atum 1992 lañ ko tuddee doomu maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ba ñu koy wax sëriñ usmaan mbàkke ni ci atum 1993 lañ ko tuddee jàmbaari cheikh mamadul mustapha ba sëriñ masuran suran ci atum 1994 lañ ko tuddee nijaayu sëriñ soin bu cheikh abdoulahat mbàkke ak sëriñ touba cheikh saaliwu mbàkke sëriñ xamsatu jaxate ci atum 1995 lañ ko tuddee ñeenteelu xalifa xaadim rasuul di cheikh abdul xaadir mbàkke borom baxdaat ci atum 1996 lañ ko tuddee jàngalekatub seexul xadim ba doomu seexul xadim ba sëriñ soin bu mbakke borom madiana ci atum 1997 lañ ko tuddee ki ëpp mu jàngal ci njabootu ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim di boroom daaru xalimul xabiir ñu gën koo xam ci ndaam di sëriñ ndaam abdurahmaan lo ci atum 1998 lañ ko tudde ka damaloon seexul xaddiim gabon ka eggale ji woon liggéeyub seexul xaddiim ba doomu seexul xaddiim ba di cheikh ibrahima mbake ibnu xaadimu rasuul ci atum 1999 lañ ko tudde boroom njenne ak la Dagana taalibeb xaadimu rasuul ba Cheikh Issa Diène ci at mi nag di l'an 2000 lañ ko tuddee boroom dër bi di Cheikh Abdoulahi Mbacke ci at mu ñuy wax l'an 2001 lañ ko tuddee boroom gede ka taxawu woon seexul xaddim ginnaaw bu mu fi bàyyi ko ci seexul xaddim daa yónni ci mag ñi buñ fi masaa bàyyi ko di sëriñ bu Bousso ci at mi di l'an 2002 lañ ko tuddee baykatub seexul xaddim ba boroom déndéy ak xàbbaan di Cheikh ahmadu ndumbe mbàkke ci at mi di l'an 2003 lañ ko tuddee ka seexul xaddim waxoon sëriñ njaase siise ne ko demal mu teral lii di alxuraanul karim di boroom daaru saam di cheikh masamba jóob saam ci at mi di l'an 2004 lañ ko tuddee sëriñ cheikh awa balla mbàkke ibnu maam ceerno ibrahima faati mbàkke boroom daaru marnaan ci at mi di l'an 2005 lañ ko tuddee caatum xaadim rasool ma ci góor ki yàkkali yoonu murit ci réew réew mii di Europe ak Amérique ak Asie di Cheikh Mourtada Mbacke ibnu Xaadimu Rasul ci at mii di l'an 2006 lañ ko tuddee doomu Seexul Xaadim ba Cheikh Abdou Samad Mbacke ibnu Xaadimu Rasul baayu aji maam sa Mbacke at ma ca topp di l'an 2007 lañ ko tuddee Sëriñ Moodu Maamun Mbacke mi njëkk a wuutu boroom dërëm ak ngërëm di maam Cheikh Anta Mbacke at ma ca topp di l'an 2008 ko tuddee boroom xayra di di cheikh mamadou moustapha mbàkke ibnu cheikh mohamadul faadal mbàkke mi ko njëkk a wuutu ñu gën koo xam ci sëriñ moodu busa jëng ci l'an 2009 lañ ko tuddee cheikh mohamadul moustapha mbàkke moom sëriñ basiiru ki yàkkali poroxaan ki njëkk a wuutu waajuram wa di sëriñ basiiru ñu gën koo xam ci sëriñ moustapha bachir at ma ca topp di l'an 2010 lañ ko tuddee borom tayif ak bayla borom noppi ak joxe sëriñ mohamed mbàkke mbàkke cheikh mbàkke gaynde faatma ñu gën koo xam ci sëriñ mbàkke soxna loo at ma topp di l'an 2011 lañ ko tuddee boroom jamono boroom ndokka ak njurul boroom tuubaa njaareem ak jannatul maxwa juróomeelu xalifa xaadim rasuul ba di sëriñ tuubaa seex saalihu mbàkke at ma topp di l'an 2012 lañ ko tuddee sët bi njëkk wuutu maamam ñaareelu xalifa cheikh mamadul faadal mbàkke kañu duppee waajuróom wadu cheikh mohamadul lamin baara baara mbàkke elaaji baara mbàkke falilu boroom ya at ma ca topp di l'an 2013 lañ ko tuddee doomu maam cheikh anta mbàkke ba ka ñu tudde xaadim rasuul te maam ceerno ibrahima faati waxoon ne nañ ko koy woowe muy cheikh ibrahima ndar waaye bu leen fàtte ne nag seexul xaddim lañu tufli ci noppam waaye maam ceerno moo sàkku woon ci njaboot gi ñu di ko wooye ibrahima waaye moom seexul xaddim lañ ko tuddee nekkoon na itim ñett ñetteelu xalifa maam cheikh anta boroom dërëm ak ngërëm di waajuram ci atum 1975 ba ci le 4 septembre 1987 ba ci ren jii nag lañ ko tuddee ñaareelu xalifa cheikh mohamadu lamin baara mbàkke ba boroom gis-gis bu sori ba ka wuutu woon sëriñ mohamadu alxafis mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ du baara di sëriñ abdul aziz mbàkke boroom guy mbind kon lii mooy ñi jot a jaar ci ñaari rakkay ndar yi teñ tudde leen ko at mu jotitam njaboot gi wala wàllu commission bi séq lii di ñaari rakkay ndar yi danañ xool kenn kuñ ko tuddee ngir sargaal seen maam ja wala seen waajur wa xadim rasuul wala kañu yaakaaroon ngir xam ne le 5 septembre 1895 moo julli woon ci bureau gouverneur kon waa commission ñaari ràkke yi yàlla na leen yàlla fay te taxawu leen ci dara darajay ki ñu tudde màggal gi ak ci dara darajay màggal gi ñuy def ndax xaadim kat yayoo na ko kat yayoo ko kat yayoo na ko kat yayoo na ko kat yayoo